Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le bu fekkee gan ci kër gi profitul gaaw nga bës bouton abonnement bi te activer cloche de notification bi ngir bañ a benn ci ay vidéo yi ni def. maa ngi nuyu ñëpp yéen waa Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax a baax man maa ngi ootee fii nekk Gambi Sénégalais la bu nekk Gambi di fi sëy yàgg naa fi lool waaye maa ngi dëkk Thiès quartier bu ñuy wax Écolon te foog naa ni lii ku mu naqariwul rekk dara dootu la naqareeti ci àdduna parce que kenn ku nekk dangay jël lii rekk féetalee ko sa bopp tey bu daloon ci sa biir famille naka la muy mel li may njëkk a wax nag mooy li may mettitlu mooy rek euh, tantay Assane dafa wax Assane bi mu amee sept ans si lañ commencé di gis feebar bi si moom feebaru xel waaw sept ans yooyu feebari xel bi Assane mësuta am kayit ne dañu wane ne Assane wérut waaye li tax ma ne daf may naqari mooy fi mu nekk nii Assane rey na nit ay mbokkam dinañ dugalante dugg génn dugg génn ba waneel ko kayitu dof Sénégal ku nekk danga fi def jëy soo defee sa problème ñu ne la mbamb du romb weer te dégg la boo fi mës a dégg su amee weer rek fàtte nañ ko xëy na ay mbokkam ñooy jékki-jékki war jógaat lijjanti waat ko waaye du mujj fenn euh, li yaay Assane dafa am doomu aadama yoo xam ne yàlla du def yiw ci ñoom ba bu ñu màggatee ba nga xam ne dañuy dem ba nga xam ne topp seen boroom rekk moo leen war a dese ci àdduna wax lu baax def lu baax di defar lu baax lu ñaaw sax nga rafetal ko yàlla day def ci ñooñu ba buñ doon kilifa sax duñ ko mën a nekk ndax yaay asan ku ko dégg ay waxam xam ne du mag muy defar du du du koo xam ne magi kilifa la du mag moo xamante ne kuy wax wax ju rafet la du mag moo xamante ne kuy fekk lu ñaaw la nga muur ko déedéet man waxuma sax bu daloon ci moom waaye dafa nekk koo xamante ne noonu la ko yàlla bindee ndax da gis xale sax di taxaw ci mbedd di wax dara walla muy def dara seen nit di ñëw mu ne naa daw nëbbatu gaaw ndax kii bu ma gisee bu ma xëyee siiw ci koñ bi kon kooku mooy façon ngi boobu na ngeen ko jàppe ni du mun a wax wax bu rafet ci aji ki la won allaaxe dee mooy mag ñi nga xam ne dañuy toog ci dëj di waxtaane li ñaaw di jëw néew bi tëdd mbaa bu ñu xamul néew boobu jëwuñu ko ña ngay jëw ci keneen di waxtaane keneen moom façon ngi kilifa boobu la yow moomu di wootee France yaa nax sa bopp nga ne Sénégal xamuñu ay këyit Europe fii si tubaab bi ñoom xam kayit yaa tuutal sa dëkk yaa wàcce sa wopp moo tax ma ne la Assane léegi ñu wutal ko ay kayitu dof àdduna bi yépp ay kayit lañuy doxe li ko jëkkëram dafa wax dafa simple yónnee ma jox ma ay preuve ma defal la ma fay la sa xaalis jëlal sa temps nga dox ko lijjanti ko toppatoo ko ndax lu ñu munta lijjanti amut nga jël sa temps nga lijjanti ko mu fay la sa xaalis mu jeex asan li ñepp waxee dëgg jalousie moo ko jàpp dafa fiir mënul supporter beneen góor di féetewoo mareem te du doon moom parce que lijjantil ma fay la sa xaalis soo xalaatul woon leneen dinga ko may temps bu fekkee alal la tax a jóg dinga ko may temps mu lijjanti sa xaalis jox la ko yow de mi nekk France te woote réere waat nga mbir du ne nga yàlla dafa bind doomu aadama te yemale woon wërsëg du benn nga ne am ñu nekk ci dëkk 20 years amuñu fa dara am ku ñëw benn weer ñaari weer wala at yàlla yàlla may ko alal ju bari ba ñëpp di coow alalam dëgg la wërsëg yàlla emut waaye kay ma waxaat la leneen dangay wax di dugal sa bopp waa asan moomu ba ko yàlla di bind ndax dana ko woon mareem sa jabar la doon ba faaw na jëlaat loolu def ko ci yàlla su ko yàlla ni woon moom mooy jabaram ñoom ñaar la bindee ca aras seen sëy fa la ko bindee kon mareem day metti rekk topp fu nekk waaye moom moomu asan lay sëyal kon yàlla kooku ngeen di wax moo ko atee na magee nangami at mu di ko topp kooku la sëyal mareem gisu ci alal bu ci gisoon alal du ci dugg ndax bàyyi ma ko may oto xaw ma leen de dégg rekk laa si am ak déglu waxtaane daa waroon a jël ne sama boroom indi na ma fii te may na fi lu mayul kenn may na ma man 3 millions waxut 4 de magam bu góor ne 3 millions la ko wax waxul ne amul fu mu yónnee moom tuddul fenn magam bu góor moo ne riyaa la yónnee xaalis gaa yu nekk Maroc lu set lañ la wax de nee nañ la ria amut Maroc Western Union moo fa am kon soxna si dégluwaatal audio yu bu baax a baax a baax yow moomu nekk Allemagne yow li ñu wax nga ne xamoo Assane waxoo dëgg xam nga Assane parce que yow Assane yow la daan kool ni la nga may ko paas nga ne ko duma la may paas nga ne ko yow saay boo ma owee téléphone li may doyam mooy affaire yi xaalis rek nga may wax asan bloqué la tey na bu la neexee nga taxaw nga ne xaw ma Assane ma ne Assane bakkan la jël bu ko kii doon amel àdduna li ci biir sax Assane bakkan la jël may waxaat ci senegal benn tey lan moo ñu tardeel sunu kilifa yi dëkkandoo yi paa kilifa yi ci koñ bi comme loi bi defatut yoonam dangeen war a bàyyi jeunes yi ci koñ bi ñoom ñuy lijjanti loolu ndaxte benn rey génn ak sa paaka di wax ne rey naa nit danga xalaat ne su ma nekkee ci kaso bi léegi tey sama mbokk lijjanti ma ma génnaa dox samay soxla bàyyi leen ñaanal nit ñi baal leen ko bàyyi leen police def seen liggéey police defuñu seen benn liggéey ma ne su ngeen ko bàyyi woon tey ñu dóor ko ba mu dee mbaa ni nigérien yi di def taal la ba nga ñor xomb bu ñu ñëwee mënuñoo boole ndoo quartier bi yépp dugal ci kaso daa rey ñu rey ko viol bi ngeen ne ay mbokk lañ nañ leen ko waxtaane ci affaire yi mbokk du fi jóg comme police fajatut bàyyi leen ñun ñu fajal sunu bopp taa jigéen la yàlla féete loo muñ ndaxte di fi nekk ak góor ñaar fukki ati yàlla yow dinga jël sa virginité sax jox ko ko di yaakaar sëy sa digganteek moom mu xëy ay mbokkam ne du ci dal duñ la ko may góor ba dem takki keneen jigéen ja boole li ko neex ak li ko naqari duggaat ci beneen góor muy gàcceem foofu mbaa góor ba wàcc ko fa ne gis naa beneen jigéen dem takki kooku génération bii ñu toll nii nag amul benn góor bu fi nekk ak jigéen te neew ma may ma may naa ko lii wala duma ko defal lii koo defalul mu romb la fi jamono bu jëkk ba la daan paa bi jógee ci kër gële dem dugg kër jigéenam mbaa mu dugg ay kër mbokkam ñëw ne doomam bu góor takkal naa la jabar ñu takk muur dugal ci biir kër gi waaye ku fi doxaan jigéen defal ko def def yu ndaw yooyu nag kenn munta nekk ni te doo lekk dara bu fi kenn kenn du mbaraan ndegam góor ñi ci boppam ñooy mbaraan waxatuma laa jigéen ñi góor ñi nga xamante ne sa jëkkër day dee nga yor sa kër yor sa lépp amee sa foyer mu neex nga teg fa ko jaamoo yàlla mu ñëw lekk la ba mu set tukkikat yaa ngi nii dañuy dem jël seen xaalis di ko yónnee yaakaar ni góor gi kër rek laa bëgg ci àdduna su ma ko joxee ñu plan sunu àdduna defar ko nga yónnee ko sa xaalis mu jël xaalis ba tabaxi ko kër def ci turam takk beneen jabar dugal ko fa ndaw sa misère loolu mbaa mu jooy loolu ba dee wàccu ko fi jigéen ñépp am guwaat ndax xol bu naqaree xalaat bu dul jeex ñu boole nag ñun benn mistake bu ndaw rek buñ leen ko defee rek ngeen rey ñu li ñuy rendi comme ay ginaar ah tax sax ndax jafe naa jàpp sax pour rey ko waaye ginaar gi ngay dugg fii rek xëcc sa ngund gi rek ne rendi paaka teg noonu lañ def buñ jógee naan nañ baal nañ def nii Sénégal surtout yéen seen autorité yi seetaat leen seen bopp li bari na ci yéen ku def nañ ko tëj bu fekkee du ngeen rey nañ ko tëj giiru dundam ay mbokkam xolam sedd xëy na sax duñu seddu guy ndax ka dem mënatuñ koo delloo si mënuñu koo remplacer waaye dinañ ne ah ma nga ca kaso ba waaye anam ma ngay génne rawale nañ ko génne ko dëkk bi yóbbu asan bu dofoon ay bokam dinañ ko bàyyi mu jaar si gaal ñu ne asan dafa dof asan jàng métier magam neena menuisier métallique la woon Assane jàng métier ba mokkal métier Assane ni day dem yoone gannaaw ay bokkam bàyyi ko mu dem kon Assane dofut Assane fiiro ko jàpp Assane bona ko jàpp iñaana ko jàpp waaye waaye ay wax bu bu dofee nopp ya koy dégg dofut waay ah seetaat leen lii bu baax su ngeen dee oote dee leen seet te xam ne kuñ ci rayoon sa mbokk tey jii di ko xoolaat bu baax a baax maa ngi jéggulu nag ci wax yi tey mooy first time ma dugg si programme yi mel nii di si wax sama xol a jeex